kon mbokk yi alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain kon ñi ngi santaat suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu dajalewaat ci ab néegam ñu fas yéene jël benn bind ca la nga xamee ne ni mooy téere bi ñu fi daan dajale di téere bi di minhajul muslim bu aboubacar jabir aljazairi rahimahullah ñu ngi nekkoon ak yéen ci kitaabu zaka mooy téere bi jàngale zakat jëloon nañ ci ay bind ba yegsi woon li ñuy tuddee al amwaalu lati la tuzakka alal yi nga xam ne kenn du ko génne zakat mi ngi noonu al amwaalu lati la tuzakka alal yi njul génne zakat su dee gis nañu ko mu ne hiya al abidu wal xaylu wal bigaalu wal xamiir bokk na lu doomu aadama yi di moom muy ay jaam xam ngeen ne bu jëkk nit ñi daañ am ay jaam niñ daan amee ay giléem mi ngi noonu ku mel ni Hakim ibnu Hizam nekkoon jegeñaale Khadija bu daan aji ji Makka daana yóbbaale téeméeri jaam su demee Arafat mu goreel leen ñoom ñépp loole bokk na ci li ñu wattu naka noonu ki amoon ay fas amoon na téeméeri fas loolu du tax mu génn ca zakat lii di doomi fas ak mbaam it kenn du ca génne zakat ay mbaam lu ñu bari bari kenn du ca génne zakat li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam laysa ala al abdi fi farasihi wa gulaamihi sadaqa rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na ab jaam day la nga xam ne mooy ay jaamam ya mu yor ak fas ya mu yor loolee day zakat du ca war ولأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة عن البغال والحمير قط musul wér ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana jël zakat ca ay mbaam wala ay berkelle ca mooy doomu fas ak mbaam mukk loolu mooy wàllu googe ñaareeli mbir bu zakat warul almaalu lazi lam yablugu nisaaban illa an yatatawwa saahibuhu koo xam ne li nga yor ci alal matul nisaab nisaab mooy lan mooy alal ji nga xam ne dana fa yegg ngir zakat war ca bu doon ci nattuwaay yi jamonoy tey ji ci dëkk mel na Sénégal dañuy wax trois cent mille koo xamee ni nii sa alal matul trois cent mille nga denc ko ren ba déwén loolu zakat waru ci xanaa lu dul nga coobare wu def ko waaye zakat waru ci rasul sallallahu alayhi wa sallam da doon wax naan laysa fi ma duuna xamsi aw suqin sadaqa ki nga xam ne la mu am ci mbayam matul la nga xam ne mooy juróomi wasaq ca mooy ñetti téeméeri saa di à peu près six cent kilos bu dee la nga góob tollul noonu yow zakat waru la wa laysa fi ma duuna xamsi awaqin min min al min alwaraqati sadaqa ka nga xam ne it la nga am matul juróomi aw waaq leeraloon nañ ko darsi bi passé te mooy ñaari téeméeri dërëm ci xaalis pur nga xam ne buñ ko doon xool day jege six cent grammes ci argent yi ñuy takk ci loxo koo xam ne la nga am yeggul foofu zakat waru la walaysa fi ma duna xamsi zawjin min al ibli sadaqa koo xam ne it giléem yi nga yoro matul juróom ku mel noonu it zakat waru ko ci gàttal zakat dafay am benn taux boo xam ne ca lay yegg mu doog a war nit ki ñetteelu mbir bi zakat warul alfawakihu wal xadrawat mooy lii di fruits yi ak légumes yi islam yusbit fi zakatiha ani rasul sallallahu alayhi wa sallam shay'un ndax saxul ci ne yonent bi alayhi salaam mas na jël loolu zakat bayda annahu yustahabu i'taau shay'in minha lil fuqara'i wal jiran doonte ne ne sopp nañu ci kam ki am tool bu mel noonu bis boo góobee nga jox ca faqiir ya ak dëkkandoo ya li qawlihi li umumi qawlihi taala ngir na nga xamee ni nii moo ëmb waxi borom ba anfiqu min tayibaati ma kasabtum dépense leen ci yu tey yi ngeen di faggu wa mimma axrajna lakum min al ard ak li ñu génn ñel leen ci suuf yi naam wax bi mu wax moom la ëpp ci fuqaha yi wax donte ne am na borom xam-xam yoo xam ne dañ ne ay légumes dañ ci génn zakat waaye la ëpp ci ñoom li ñu wax mooy saxul yonent bi daan ko def fruits yooyu mooy mango yaag la nga xam ne mooy légumes yi nga xam ne dafa aju ci naaja yaag tomate yaag ak yu demee noonu lépp luy fruits ak yu légumes doomu aadama bi yaay coobarewu loo cay génne jox fuqaraaw yi waaye texte bi wane ne il faut mu yegg ci temps zakat dog caa war te bu ca yeggee temps ngay génne loolu moom amut borom xam-xam yi ko farataalit dañ koo tënk rek ca waxi borom bi sala subhanahu wa taala mu ne dépense leen génne leen sarax ci li ñuy meññal ci kaw suuf loolee kon mbokk moom mooy mooy wàllu googee juróomeel wala ñeenteel bi nga xam ne zakat waru ca mooy xal yu nisaa la nga xam ne mooy takkaayu jigéen ñi ida lam yaqsud bihi gayru zina su dee ne takkaay yi day jubluwu ci lu dul taar kese lum bëri bëri zakat du ca war da ngay gis jigéen boo xam ne boîte à bijoux ëpp na cinq millions su dee ne moom lam ci jublu rek mooy di ko takk dañ naan zakat waru ci waaye fa in qasada bihi ma zinati al idxaar su dee ne nag daa jublu ànd ak taar lii kat dama koy denc sama alal li waqtin xaaja heure bu mu amee aajo jaay ko fa innahu tajibu fihi zakat lama shaabaha min maana al idxaar heure bu jigéen jëlee alalam denc ko ci or te jigéen ñi bari dañ koy def su boobaa at mu ne da ko war a génneel zakat waaye daal su dee ne moom la muy jubluwaay mooy takkaay kese ka tax a jóg loolee lu mu bari bari zakat du ca war juróomeel liñ dul génne zakat mooy aljawaarihil aljawaahirul karima ka zumrud wal yaqut wal lu'lu mooy li ñuy tuddee les perles précieuses mooy perles yu chères yi mi ngi noonu loolee ay amolod ay yaqut ay marjaan ay lu'lu yooyu ay perles la yoo xamee ne nii il faut nga gis ko pour mën koo xam ngi mel na jama ki musul gis jama mënoo ko expliquer luy jama donc yooyu nga xam ne perle yu cher la moo gën a cher sax or teewul islaam tëralul ñu ciy génne zakat ndax léeg-léeg dana néew loolu sax nit ki am ca lu bari wa saairul jawahir ak mboolem perle yu cher yooyu yépp zakat waru ca illa an takuna li tijara fa tajibu zakat fi qaymatiha ka urudi tijara ba mu des nag ki nga xam ne moom da koo jënd ngir di ko jaay ki nga xam ne jamanteer la day jënd jama di jaay ki nga xam ne day jënd la nga xamee ne nii mooy ay lu'lu ay marjaan ay lu mën a doon loolee jëmmi moom da nga ko moom zakkaat waru ca mais bu dee da nga caa jublu jëndi jaay zakkaat da cay war juróom-benneel bi ci mujjoon al arudu lati lil qaniya la lil tijara kal farasi wa nahwiha mooy lépp yi nga xam ne dañ koo gaaral ci moomeel nga xam ne dañ koo def ngir jëfandikoo ko dimbindikoo ko defoo ko ngir jaay ko loole mel na fas yaag yu deme noonu yépp zakat du ci war wa kaza duur wal masani wa siyaraat la nga xam ne mooy kër yi ki amul fukki kër ak juróom it kenn du ko wax kër yi zakat da ciy war ki amul ñaar fukki oto kenn du ko wax zakat da caa war ki amul ay usine atelier yu ñuy liggéey zakat waru ci zakat du war ci loolu lépp xanaa lu dul la ca génne ca alal nga denc ko ren ba déwén islam islam yarid an sharii zakatuha ndax kat amul benn texte bi wone ne yooyu dañ caa war a génne zakat kon mbokk loolu mooy li mu la tënkal ci ne lii moom kenn du ca génne zakat mi ngi noonu gannaaw ba nag lay ñëw bëgg a détaillé lépp loo xam ne zakat da caa war kañ la cay war ak naka lañ cay génnee allahuma lu dul lii ñu jot a jàng mooy yi nga xam ne nit ki da koy moom ca zakat wóoru ca su doon amoon na ku ca amoon ab laaj bala ñuy jàll wala boog ñu jàll ca beneen darsi bi loolu nit ki am laaj ci lii ñu passé loo xam ne xëy na leerul ci boppam noom kon mën nañ continuer almadatu thalitha ñetteelu bind bi mooy fi bayaani shuruti ansibatil muzakkiyat ngir leeral yan chart lay mooy kemuk ya ñuy war a génn zakat walil mi ngi noonu wal maqaadirul waajiba fiiha gannaaw ba ñu xamee kem ba ñu war a génne gannaaw ba it ana ban lim la ñu war a génne ca loolee la ca jiitu mooy an naqdaan wa ma fi maanahuma la nga xam ne mooy monnaie yi yi ñuy jëf weccante ak lépp lu taxaw place la jiit ci doolu mooy al azahab or ki am or wa chartu zakatiha an yaxuula alayhi al xawl charte bi tax zakat di war ci or benn mooy denc nga ko un an tànk matul un an zakat waru ci wa an yabluga nisaaban fokk mu mat nisaab dana la ko leeralal wa nisaabuhu ishruuna dinaaran nisaabu zahab mooy ñaar fukki dinaar loolee boo ko doon xool day nekk quatre-vingt-cinq grammes d'or ndax dinaar bu nekk mi ngi peser quatre grammes vingt-cinq su ko defee kon day nekk quatre-vingt-cinq grammes d'or wal waajibu fiihi rubu'ul ushr la nga xam ne moo cay farata mooy lii di ñeenteelu fukk te mooy bu doon mag ñi la ñuy waxal dañ naan da ngay séddale alal ji fukki xaaj jël benn xaaj ba séddale ko ñeenti xaaj loole mooy zakat mi ngi noonu muy un quarantième doonte ne fa lillahi alhamdu tey bi ñu yàlla tàggatalee li nekk ci kaw suuf tout zakat cent mille ak milliards ci yem te mooy xale bu ndaw bi nekk primaire sax soo ko wooye mën na ko génne te mooy divisé par quarante rek un million divisé par quarante vingt cinq mille jeex na quatre cent mille divisé par quarante dix mille jeex na quatre cent millions divisé par quarante mi ngi noonu mu jox la dix millions jeex na kon mooy robol oshr mooy un quarantième fa fi kulli ishrayn dinaran nisfu dinar wa ma zaada fa bi xisaabihi qalla aw kasura bépp ñaar fukk dinar gennooli dinar lañ koy génneel te mooy un quarantième la ca tegu it ci noonu lañ koy calculer ngi noonu ki amoon un million masalan am cent mille dañ naan ko un million bi vingt cinq mille lañ koy génne cent mille bi dañ koy diviser par quarante mu jox la deux deux mille cinq cent mi ngi noonu am di noonu laa day yaakaar naa noonu la waaw mooy su ko defee noonu la ñuy génnee ba ba affaire yëpp di mat naam gannaaw loolu mbokk julit ñaareel bi mooy alfidda alfidda mooy xaalis wa shurutuha alxawlu bala caa zakkaate war moom it fokk mu am at comme or wa buluuxu nisaab ka zahab fokk mu am nisaab comme zahab wa nisaabuha xamsu awaaq wa hiya miata dirham nisaabam mooy juróomi awaaq te mooy ñaari téeméeri dërëm comme niñ ko jàng woon sànq wal waajib fiha rubool ushri ka zahab la cay warit mooy un quarantième comme or fa fi miatay dirham xamsatu darahim wa ma zaada fa bi xisaabihi ku dencoon ñaari téeméeri dërëmi or juróomi dirham la cay génne la cay tegu it noonu lañ koy xisaabe dañ koy waxoon dar sa passé ñu bari dañ naan ku denc ñaar téeméer at mi bu ñëwee da nga koy génneel juróomi dërëm waaye fi ñuy juume mooy ñaar téeméer bi chari ay wax bokkul ak suñu ñaar téeméer bi ñaar téeméer bi chari ay wax mooy ñaari téeméeri dërëm ci argent pur nga xam ne boo ko doon pesé day nekk six cent grammes d'or six cent grammes ci xaalis su boobaa nga génne ca juróom juróomi dirham juróomi dirham loolu moom mooy nekk la nga xam ne mooy zakaatam kon loolu la wax ci or ak xaalis ñetteelu bind bi mu lay jàngal man malaka qistan min zahab lam yablugh nisaaba wa axara min fidda lam yablugh nisaaban jamaahuma ma'an ki nga xam ne daa amoon lenn ci or ak lenn ci xaalis or ba motul nisaabu zakat xaalis bi motul nisaabu zakat waaye su ko boolee mu mat nisaab mi ngi noonu iza balaga nisaaban zakahuma ma'an kullan bi xisaabihi su doon bu ko boolee mu mat zakat da koy daal di génne lépp zakat bu nekk mu génne ko ca la nga xamee ni mooy xisaabam masalan waa ji bu doon te ne dañu jël base wu zakat bi ci xaalis masalan ñu ne ko am trois cent mille ci xaalis da nga war a génne zakat moom li mu yor ci o ci xaalis pur deux cent mille lay doon lay doon waaye mi ngeeg ci valeur or loo xam ne moom it deux cent mille la suy boolee ñaari ñaari mu ëpp mu ëpp trois cent mille muy quatre cent mille kon dañ naan ko yow génneel zakat xaalis bi divisé ko par quarante or bi divisé ko par quarante la nga ñaar yooyu nag nga jël génne ko muy zakat lama ruwiya an nabi sallallahu alayhi wa sallam damma zahaba ila alfidda walfidda ila zahab wa axraja zakata anhuma gis nañ yonent bi alayhi salaam da daan wax nañ boole or ak xaalis xaalis ak or génne ca la nga xam ne mooy zakat wante ni jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanaka lii di un gramme d'or daa nga ci la nga ci daan mën a am mooy fukki gramme yi xaalis waaye jamono dafa dox ba or bi ak xaalis or bi ak xaalis bi différence bi léegi dafa jéggi day lool ñu demee ba naan un gramme d'or vingt mille francs un gramme d'argent cinq cent francs différence bi kenn xamul nu mu toll léegi mu ngi noonu ala kulli xaal mu ne it kama annahu yujzihu ixraaju ahadi naqdayni an il axar dana dagan benn ci yooyee di or ak xaalis zakaatam ñu génne ko ca la ca des kii daa amoon or war a génne masalan benn dinaaru or bu ko neexee mu xool dinaaru or bi lu muy méngool ci xaalis mu jël xaalis boobee génne ko bàyyi fa or ba kii waroon a génne zakaatu xaalis waroon naa génne cent grammes ci ci ci xaalis bu ko neexee xool la méngool ci or mu génne or ba bàyyi fa xaalis ba mi ngi noonu moo tax mu ne fa man wajaba alayhi dinaarun jaaza lahu ixraaju ashrati darahim min min alfidda koo xam ne dinaaru or da koo war bu ko neexee génne fukki dram ci ci xaalis wal aksu yasaxu kazalik naka noonu it contraire bu mën naa am comme niñ ko leerale kama an al awraq al mal awraq al maliya al yawma tuzakka zakata an naqdayni wa huwa rubu al ashr li nga xam ne mooy monnaie yi ñuy jëfandikoo suñ jamonoy tey dollar euro CFA lu mën a doon day taxaw place or pur ak xaalis pur في حين أن أرصدة الأوراق لدي الحكومات تتكون من الذهب والفضة معا soo xoolee li ñuy tuddee banque centrale yu mag yi seen xaalis yi ñuy joxe la koy garantir mooy ay lingots d'or ak ay lingots xaalis bi xaalis di am valeur kon dañuy génne ay pièces génne ay këyit waaye loolu la muy représenter valeur am en or loolu tax ba tey ji ci dencoon un million ci xaalisu CFA denc ko ren ba déwén day xam ne maa ngi de maa ngi denc équivalent nangam ci gramme d'or kon day génne zakaatam comme bu ko doon génne bu doon dafa denc la nga xam ne mooy or ba gannaaw loolu ñeenteel bi mooy li ñuy tuddee urudu tijaara la nga xam ne dañ koo gaaral di ko jaay wa hiya imma mudaaraatun aw muxtaqira lii di la ñuy jaay ñaar la la nga xam ne gaaral nañ ko muy dema ko dikk ak la nga xam ne dañ koo denc fa in kaanat mudaaratun qawwamaha bi nuqud ra'su kulli xawl li nga gaaral di ko jaay at mu nekk da nga war a xool lam méngool ci xaalis nga génne zakaatam fa in balagat nisaaban su dee mat na nisaab nga génn ko aw lam tablugh walakin ladayya walakin ladayhi nuqudun uxra gayraha zakaha bi nisbati isnayni wa nisf fi lmia benn waaye ngi nii mi nga am commerce am magasin boo xam ne dañ ni ci misaal bu ñëwoon nisaabu zakat trois cent mille la masalan moom magasin bi kat deux cent mille la fi nekk bu doon magasin boobu dong la yor dañ naan zakat wóoru ko waaye mi ngi ci poosam lépp cent mille francs kon dañ naan ko booleel sa cent mille francs yi ak magasin bi li nekk ci bagage yi ngay jaay nga génn ko muy zakat ndax marchandise bi dañ koo considérer xaalis la ndax xaalis la buy tourner borom bitig bi day xëy di jaay di jaay xaalis boobu mu dem jënd marchandise indi suba mu jaay loolu ainsi de suite kon moo tax dañ ko considérer comme xaalis mu ne nag wa in kaanat muxtaqira zakkaha yowma bayiha li sanatin wahida walaw makasat awaman indahu yantaziru biha gala al asar léegi la ñu gis koo xam ne lam jënd da koo jënd denc ko niir xaar kañ le prix bi di yokk loolee na doon ci ay suuf laag ay marchandise ak ay yu kenn xamul jënd na ko naam jaayee tax waaye nag jaayu ko léegi mi nga xaar prix bi yokk ñu ne ko mel noonu keroog ba mu jaayee marchandise ma la ci zakkaat di war même bu doon daa def ci moom la nga xam ne mooy ay at kon loolu mooy la aju ci zakkaatu doomu aadama bi la nga xam ne moom lay jaay mi ngi noonu ca magasin bi it nañu xam ne la nga jublu jaay ko ci rek loolu dong la ñuy xool bu ñuy génne zakat bi frigo yaag balance yaag yeneen ak yeneen yi nga xam ne jaayuñu ko loolu du ca bokk juróomeel bi ñuy génne zakat mooy li ñuy tuddee addayuun mooy ay bor man kaana lahu ala ahadin daynun képp koo xam ne am na ko ko yoral bor wa kaana yaqdiru ala alxusuli alayhi mata sha ca bor boobee kat heure bu demoon mën koo jot su boobaa wajaba alayhi day daal di war ci moom mi ngi noonu an an an an wajaba alayhi an yadammahu ila ma indahu min nuqud aw urudin wa tuzakkihu mata haala alayhi alxawlu koo xam ne nii daa am la nga xamee ne mooy bor ba ko waa ji yoral day war ci mu an yudammahu ila ma inda yow kat yaa ngi war a gëñ ni zakat sañ càmmee day lim la àbb ci xaalis soo demoon na ko dama koo soxla mu yëkkati ko teg ko sa loxo kon su boobaa da nga koy boole xaalis bi nga yor wala marchandise bi nga yor génne ko muy zakat heure bu at mi jotee wa in lam yakun lahu nuqudun siwa dayn même bu doon amul dara lu dul bor bi waa ji jox na ko lebal na ko masalan un million fi mu toll nii moom yorul dara ci poosam waaye nag un million yu mu lebal waa ji heure bu demoon na ko jox ma ko mu jox ko ko day war chaque année mu génneel ko zakat mi ngi noonu mi ngi noonu wa kaana daynu yabluhu nisaaban zakaahu kazalik mooy bu dee bor ba doon na loo xam ne mat na nisaab wa man kaana lahu daynun ala musir koo xam ne nag borom kaka ka yoral dafa doon ku nekk ci jafe-jafe laysa lahu istid istirdaduhu matasha su demoon taxaw na ko fay ma du ko fay ku mel noone zakahu yowma yaqbiduhu li amin wahid walaw madat alayhi iddatu sanawat koo xam ne ka la yoral bor soo demoon na ko fay ma du la fay ku mel noonu luñ lay wax bàyyil ba jot bor bi génne ko benn at même bu doon ñetti at la la yoral ñetti at la ko yor yow it benn at rek nga koy génne ndax dañoo gis ne xaalis la bu tëdd liggéeyu la amulu la njëriñ mi ngi noonu amma nag bokkul ak borob ka nga xam ne moom soo demal na ko sëñ bi indi mu jox la mi ngi noonu bokk na ci la nga xam ne mooy la ñuy war a génne zakat mooy li ñuy tudde ar rikaz rikaaz wa huwa dafnul jaahiliya moom mooy denc maam ya xam nañ ne suñu jamonoy tey jii suñu borom yàlla may nañu kër yu bari am na sécurité ñu mën faa yor ay coffre ñiy jël seen alal yóbbu ca banque ya waaye kër yu jëkk yi melul woon noonu ba suñu jamono tey soo demoon ci dëkki àll bi bu nit ña nekkee ci tool yi bu la neexee ñëw ci kër gi néeg bu ne nga dugg fa suñu maam yi seen denc yi ñu daan denc yëpp mooy suul suul rek lañu daan denc loolu moo tax ba alal yu bari da daan sank nga noonu na gën a góor gu ñu dëkkaloon daa dem bay faatu nekkat alal xaalisam ba ma ngi ko suul ci mbànd ca tool ba bàyyi fan ci tool bi fan ci tool bi ba moom faatu doom yi fu ne gas nañ ko mënuñoo fexe ba gis ko yaa ngi dégg loolee moom lañu daan tuddee denc maam yi léeg-léeg nag suñu borom bu ko neexee benn waay ñëw rek di gas génne ko nga xam ni ñu ña ko dencoon kenn xamu leen loolu la ñuy tuddee rikaz rikaz boobee képp koo xam ne da koo am fa man wajada bi ardihi aw daarihi maalan madfunun min amwalil jahiliya koo xam ne daa gas ci suufam génne ca denc wala këram alal joo xam ne ca jaahiliya lañ ko suuloon mooy daal xam nga ne lii moom du alali léegi su dee ne alali léegi moom da ngaa war a fexe gëstu boroomam waaye bu dee ne xam nga ni lii bañ ko suulee yàgg na wajaba alayhi an yuzakkiyahu bi dafi xams xumsihi ila alfuqara walmasakin walmashari su boobaa moom comme alal la joo xam ne amul benn effort boo te def moom juróomi xaaj nga koy xaaj génne benn ba ba doon alal joo ñaqa gis ngeen ñeen fukki xaaj nga koy xaaj waaye bu dee loo for rek juróomi xaaj nga koy xaaj benn xaaj bi ngay jël jox ko miskin yi ak fuqaraaw yi ak fa zakat ya yow li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi rikaz al xums mu ne képp ko for denc maam ya ne génne fukkeel ba loolu mooy zakat ba juróomaal juróom ñaareel bi nga xam ne zakat da cay war ba tey mooy li ñuy tuddee al maadin ca mooy li ñuy tuddee miin yi إذ كان المعدن ذهبا أو فضة زكى ما استخرجه منه إن بلغ نصابا su leen ne fa ñuy génnee loole day den or ko masalan fu mel ne Sabadola nga xam ne gars yi ngi gas foofu montagne yi di génne or wala foo xam ne xaalis lañ fay génne mu ne su booba heure boo génnee loo xam ne mat na nisaab da nga koy génneel zakat ci saasi wa sawaun xaala alxawlu aw lam yaxul fa innahu yajibu alayhi kullama staxruja kamiya zakaha mata balaxa nisaaban loolee kenn du ko xaaral at heure booy gas di dajale gas di dajale ba am loo xam ne mat na nisaab da nga koy xaaj génne ko muy zakat wa hal yuzakkiha bi rubu al ushr aw bil xums ka rikaz buy génne zakat bi nag ndax da koy diviser par quarante wala da koy diviser par cinq comme lu ñu for ixtalafa ahlul ilmi fi dalik borom xam-xam yi dañoo wuute ci loolu fa man qaala yuzakkihi kal ma'din bil xums xaasahu ala rikaz am na ñoo xam ne dañ ne dañuy génne lii di nga xam ne mooy zakatu miin ya un cinquième ñoom dañ ne lii daal moo ki génne denc maam ya ñoo yem kii daa gas génne kii gas génne kon mboolem lu ñu génne ci miin yi dañ koo war a diviser par cinq wa man qaala yu zakka zakata naqdayni axasa bi umumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam amma ña jàpp ne dañ ko war a génneel zakat comme ni ñuy génnee or ak xaalis dañoo jàpp ci waxi borom bi mu ne wa laysa fi ma duuna xamsi awaaqin sadaqa yonent bi alayhi salaam nee na koo xam ne amoo lu yées juróomi awaaq sarax du ca war fa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam xamsu awaaq shaamilun lil ma'din wa gayrihi wal amru fi hadha al waasi' mu ne nag ba muy wax loolu dafay ëmb lañ génne ci miin ak leneen lu dul loolu donte ne mbir boobu mbir bu yaatu la ku génne un quarantième ah def nga lu baax ku coobarewu génne un cinquième it loolu gën a baax walhamdulillah wa amma ida kaana almadinu xadidan aw nuxaasan aw kibritan su leen nag miin ba dafa nekk miinu weñ wala miinu ay xanjar wala miinu ay këriñ aw xayrihima fa yustahabu tazkiyatul mustaxrij minhu min qaymatihi bi nismati isna isnayni wa nisfu fil fi mi ngi noonu filmiya su dee ne la ngay génne dafa nekk leneen loo xam ne du or ak xaalis mu ne su boobaa moom da nga koy évaluer xool prime ñaata lay jar ci marché bi nga doog a génne un quarantième ba islam yarit nassun saxiixun fi wujubi zakat fiihi wa laysa huwa min alzahabi aw alfidda fa yuzakka wujuban mu ne loolu kat nañu xam ne it ba tey texte bu leer buy wane ne zakat da caa war nekkul comme na mu amee ca or ak xaalis bi ci mujjoon kon mooy almaalul mustafaad alal ji nga xam ni dañ ko dolleeku ci kaw suñu alal in kaana almaalu almustafaad ribxa tijaratin aw nataaji xaywaan zakaahu bi zakaati aslihi wala yaltafitu ila alxawli fiihi su dee ne alal ja la ca dolleeku dañoo gis ne ci jëmmi alal ji la génne masalan benn borom bitig a ngi nii chargé woon bitigam un million la ci chargé di jaay di jaay di jaay ba at mi dellu si mu xool gis na kat bitig bi dem na deux millions un million boobee génn ci alalu cosaan ba am na ci cent mille yoo xam ne un mois li fa am deux cent mille yoo xam ne deux mois la am yeneen deux mois la am waaye maadaama ci jëmmi alal jële génne kenn du xool lii kan la ñëw ak kan la ñëw lépp la ñu boole zakar waa ji amoon ak juróomit am na quarante xar zakat kon war na ko mu yar leen ren ba déwén xar yooyu jur ñaar fukki xar wala lu ko ëpp su boobaa heure bu ñuy calculer xar yi juddu démb ak yi juddu barki démb yépp la ñuy boole lu tax mooy dafa cosaanoo ci la nga xam ne mooy alal ja loolu kon la ñuy wax ca wàllu googe waaye nag wa in kaana almustafaadu min gayri ribxi tijaara aw nataaji xaywaanin istaqbala bihi in kaana nisaaban xawlan kaamilan suma zakkaahu waa jaa ngi nii nag moom am alal joo xam ne jógewul ci alali cosaanam benn waaye ngi nii baayam dee moom da daan génne zakkaat na ko jëkk baayam dee mu dolli ci alal alal joojee ndax da koy génne zakkaat dañ naan déedéet zakkaat waru ci lu dul amul ci moom at alal juñ ko may naka noonu ndax alal ji jógewul ci alalu boppam ju mu fàggu kon zakkaat waragu ci lu dul dafa am at loolee mooy la nga xamee ne nii moom lañ koy wax mi ngi noonu moo tax mu ne fa man wahiba lahu koo xam ne dañ koo may alal maalan aw warisahu wala mu donn ko la zakata fihi hatta yahula alayhi alhawl zakat du ko war lu dul am at daal di cay romb mu bëri question bu bëri bu lu bëri ci salarié yi di laaj man damay génne zakat ca man par mois lay fayeeku ku mel noonu naka lay génne zakat li ñu lay wax mooy mois yooyu ngay fayeeku mois bu ci amul un an ci yow zakat waru la kon mënoon nga di génne douze zakat par an waaye mu am lu gën a noppale ca it gën ca fuqaraawu ya mooy jullit nga am waxtu woy génne zakat su jotee nga xool lu la yàlla wërsëgal ci àll rek nga génne ko noppalu ba déwén waaye bu dul looloo da nga dem bay génne juróomi zakat juróom benn zakat ci at mu nekk te loolu mën na laa perturber mën ngaa fàtte mën ngaa nangam ndax bépp alal boo xam ne jógewul sa alali cosaan nga liggéey ko alal ju jur ko daa jóge ci yeneen mooy yaa ko liggéey ci leneen wala ñu may la ko wala nga doon na ko wala nangam zakat waru ca waaye nag la la gën a noppal mooy li ma la wax utal daal bis boo xam ne mooy si bisu zakat lu la yàlla wërsëgal lépp nga génn ko noppaluwaat nag léegi ba déwén loole dañuy gis ni moom mooy la nga xamee ne nii mooy la ca la ca gën a noppale naam bilaal soo waxtu yi lu des bëri na ah vingt la ñuy nodd wa ala kulli xaal kon mu ne li ci tegu mooy al an'am zakatub jur an'am buñ ko waxee mooy giléem nag xar ak bëy lii la yàlla lii la ñuy namm ci an'am leneen lu dul loolu kenn du ko génneel zakat lu dul da ngaa jublu jaay ko xaj yaag mbaam yaag ginaar yaag yooyu yëpp kenn du ko génneel zakat lu dul da ngaa jublu jaay ko boo ci amoon junni it kon la ca jiitu mooy al ibil mooy giléem wa shuruutu zakatiha an yaxuula alayha al xawl wa an tabluga nisaaban mooy kañ la zakat di war ci giléem mooy amoon nga juróomi giléem denc leen ren ba déwén mi ngi noonu wala boog mat na nisaab nga denc ko ren ba déwén wa nisaabuha an takuna xamsan min al ibl fa aksar nisaabam mooy fokk mu mat juróomi giléem wala lu ko ëpp li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laysa fi ma duna xamsi zawdin sadaqa yonent bi nee na kee xam ne amul juróomi la nga xam ne mooy giléem ku mel noonu zakkaat waru ko wal waajib fi xamsi fi fi lxamsi shaatun jaz'atun aw fat sanatan wa daxalat fi saaniya min gaalibi lganami lmuzakka da'nan aw ma'zan ki am juróomi giléem naka lay génne zakaatam ndax day jël giléem génne ko zakaat déedéet boo amee juróomi giléem da ngay jël xar walla béy boo am un an ba dugg ci atum ñaareel ma loolu mooy zakaatu juróomi giléem na doon loolee day nekk xar mi ngi noonu walla mu nekk la nga xam ne nii moom mooy mooy mooy béy wa fil ushri shataan juróomi giléem yooyu zakaatam ak juróom-ñeenti giléem a yem ñoom ñoo yem lañ leen génne zakaat benn xar walla benn béy amma bu demee ba mat fukk nag su boobaa ñu ne la ah kon léegi yow ñaari gàtt ngay indi wa fil xamsata ashir salaasu chia kii am fukki giléem ak juróom ñu ne ko ah ñetti gàtt ngay indi wa fil ishrin arbau chia ki nga xam ne daa am ñaar fukki giléem ah indil ñeenti ñeenti xar wa fil xams wala ishrun bintu maxaad koo xam ne nag dafa am ñaar fukki giléem ak juróom lay indi li ñuy tuddee doomu koo xam ne nii yaay jàng ëmb min al ibil wa hiya ma awfat sanatan wa daxalat fi saaniya kon giléem kañ lañ koy génneel zakatu giléem su matee ñaar fukki giléem ak juróom waaye xatta ki am ñaar fukki giléem ak ñeent ku mel nii ay xar rek lay génne wala béy juróomi giléem benn xar fukki giléem ñaar fukk ak juróom ñett ñaar fukk ñeenti xar su matee ñaar fukki giléem ak juróom nag nga doog a indi benn giléem boo xam ne moom romb na at ba dugg ca ñaareelu atam mi ngi noonu fa in lam tuujat fa ibnu labun su dee ne nag moom amul giléem googu nga xam ne dafay dugg ci at jëm ca ñaar muy am beneen boo xam ne nii dafay dugg ci ña day nekk ñaareelu at ba ba dugg ca ñetteel ba mi mi mi ngi noonu kon mooy wa huwa ma awfa sanatayni wa daxala fi salisa fa ida balagat sittan wa thalathina su demee ba yëgg ci fanweer ak juróom benn su boobaa lay doog a indi li ñuy tuddee bintu laboon ca mooy ya nga xam ne dugg na ñett ba jëm ca ñeenteel ala kulli xaal dañoo gisoon bilal nodd waaw su ko defee incha allah suñu dajawaatee ñu gën a dugg ca la nga xam ne mooy nag ya gàtt ya ndax lii nga xam ne dafa aju ci zakatu giléem yi jàpp naa ne waa jàkk ci kenn amu ci giléem koy génne zakat te it mbir la yoo xam ne c'est très compliqué kon mi ngi noonu mbokk wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain barak waaw incha allah xam na mbokk yi doon amoon nañu laaj na doon ci zakat bi la wala lu leen lu dul noom waaw bismillah waaleykum salaam wa rahmatulah barakatu waaw ki nga xam ne dafay gañe xaalis bu bari te xaalis boobee du fekkante ku mel noonu dafa war a coobarewu coobarewu génn ay sarax yu bari waaye zakkaat moom waru ko tey jii da ngay gis ne borom bitig bi tey mën na am bitigam bi un million moo ci nekk chaque année dana ko génneel zakat nga gis benn jeune bu mu nekkal ci koñ bi moom day fayee ko un million par mois ca million bi benn du fa fekkante ak moroomam donc kii day am douze millions par par an kii di am sax loo xam ne nii bu ñu dajale woon ni mu yor yëpp matul deux millions trois millions ci day génne zakat looloo tax ñooñu am ay revenu yoo xam ne revenu yu takku la waaye nag alal ja du da du daje ci ñoom loolu zakat moom waru leen waaye war nañ bàyyi xel di génne zakat di génne baril di génne ay sarax seen kemtalal kàttan mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam
marchandise léegi nag ñu dem ba balaa at bi jotaat nga jaay matériel doolee ko ci marchandise ndax kooku tam dañ ko ci def
maadaama da nga indi loo xam ne da nga koo gaaral di ko jaay su boobaa dañu naan lii dafay matériel bi dafa jóge ci bitig bi dafa jóge ci marchandise wala feneen nga ko jëlee comme exemple dangaa jaayaat bitig kenn Waaw.
day tasaar sa sa matériel waaw waaw léegi matériel boobu dañ ko ci su lay fay da lay fay doolee ko ci marchandise léegi nag boobu nga ne da nga jaay bitig bi du du bitig bi ngay génne zakat moom nga jaay waaw léegi noo koy génne noo loo- loolu ba pare bitig bi nu mu fay desaate laa xamul
comme frigo
wa- waaw yooyu nga jaay dugal ci dugal ci biir commerce bi ah waaw bu dee ne bu dee ne da nga jaay dara dugal ci biir marchandise mi loolu nga jaay dugal ci zakat bi du ca waragun ndax loolu jógewul ca la zakat waroon la zakat waroon mooy marchandise mi ci boppam su dee marchandise bi nga jaay dugalaat ci benn alal la mais bu dee li nga wax frigo nga jaay ay balance nga jaay loolee zakat waru ca woon dugal ga nga ko dugal ci sa biir alal dañ naan zakat waru ci léegi waaye nag bu amee at zakat da cay war day delluwaat ci li ñu waxoon ci biir dars bi mooy yow mi bëgg a noppalu nga ut bis boo xamee ni ni bu jotee li la yàlla wërsëgal nga génn ca zakat noppalu ndax bu dul looloo bépp alal ak cosaanam da nga koy noté bu waxtu woo jotee nga war koo génneel zakatu bo- boppam loolu mooy farata bi la sharia teg waaye nag li gën a noppale mooy lépp nga def ko benn yoon rek moo gën ci yow gën ci fuqaraaw yi wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal naam bismillah naam naam waaw waaw ala kulli xaal téere yi ça dépend téere yi bu dee ne say téere la woon yaa ko moom wala da nga ko donn ala kulli xaal say téere la woon téere yooyu moom da ngay gis boo ko jaayee zakkaat du ca war téere yooyu zakkaat di war mooy ya nga jënd jublu jaay ko su dee téere bi da nga koo jënd jublu dem jaay ko su boobaa borom xam-xam yi dañ ci am tuuti ixtilaaf am na ñoo xam ne dañ ne fa nga jaayee terrain foofee la zakkaat waree même bu doon ñetti at la am na nag ñoo xam ne dañ ne maadaama xaalis bi da nga koo jël jënde ko terrain bi jubluwaay bi mooy yaa ngi koy gaaral di ko jaay mën naa jar tey mën naa jar ëllëg at mu ne da nga ko war a génneel zakkaat loolu kon at mu ne da nga koy war a génneel zakkaat ki nga xam ne dafa jënd terrain moom jaayu ko léegi da koo jënd rek denc ko pour bis bu jamono neexee mu jaay ko ku mel noonu ba amul fukki at it bis bu mu ko jaayee rek lay génne zakat ci gàtt ci gàttal daal la nga jël jaayoo ko léegi benn benn yoon nga koy génneel zakat la nga xam ne nag moom da nga koo jënd léegi gaaral ko léegi borom xam-xam yi nañ ci ixtilaaf am na ci ñoo xam ne dañ ne at bu ne da nga koy génneel am ñu koy delloo ca yeneen terrain yële waaye téere bi nga xam ne sa téereb cosaan la moom jëndoo ko woon pour jaay ko yaa ko moom ku mel noonu bis boo ko jaayee sa xaalis la fokk xaalis bi am un an ci yow nga doo koy génneel zakat wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ki nga xamante ne li nga am nekk ci benn réew te monnaie yi bokk léegi bu nekk boo ko génnee exemple am nga benn paa bu nekk benn réew ak benn fii boo génnee ko asaka bi dañ koy génne foofu ci wéccet boobu wala dañ koy dajale génne ko ci wéccet boobu ala kulli xaal même boo dee nekkoo ci benn réew tey jii kii mi ngi mi ngi mi ngi Europe Europe googi ñu ne moom kat am na fa 1000 euros 1000 euros boobu xam nañ li muy weccoo ko fii su boobaa yow fii nga dëkk bi nga nekk ma lay nisaabu zakat moo la engagé am nga 1000 euros Europe am nga euh, nangam ca Burkina ca Guinée ca feneen fu mu mën a doon yow alal joojee ngay mingale ak CFA. su boobaa baasu réew mi nga nekk baasu nisaab boobee ca ngay basé wu génne ci sa xaalis comme ni mën na ko waxee it ki nga xam ne CFA da ko waroon bu ko génnee euro zakat ba baax na bu ko génnee dollar zakat ba baax na mooy monnaie yépp da ngay gis ne seen zakat day duggante lu dul taux bi nga koy calculer moom mooy taux dëkk ba nga xam ne fa nga nekk mi ngi noonu ak la nga xam ne mooy valeur or ba la mu fay jar wallahu subhanahu wa taala aalam naam amala kulli xaal xaw ma ndax bilal foo toll kon xanaa kon incha allah yal nañu yàlla boole ci ñiy génne zakat yal na yàlla nangul ñu koy génne ci ñun ca barkeelal leen wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain